جنة والوباء réseau bi wóor moo leen di gunge ci màggal gi te di leen may seen émission di Free ci sa réseau mbégteem 18 safar gi ñun ñépp koy yëg ngir sa màggal gën a neex yóbbaaleel sa puce 4G bu Free tàppeel gaaw dièse 155 dièse wala nga dem ci sa application My Free jënd sa paas yaatal sa mbigte waa Touba réseau Free rekk la ñu màggal ci jàmm ak réseau bi wóor di Free ci sa réseau إما سان لنهوي mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ñaanal mbooleem xalif généraux yi ñaanal bu baax Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké guddik safar ak télévision Futur Média mbokk yi daa ngeen bég Serigne Bassirou Abdoul Khadre nu ngi koy nuyu Serigne Abdou Samad Mbacké Chouaïbou nu ngi koy nuyu bu ma leen nuyoo Serigne Sidi Abdoul Ahad Mbacké nuyu naa ko nuyu naa njabootu Cheikhul Khadim gépp nuyu bu baax a baax Serigne Bassirou Khadim Awa Ba suñu soppay bopp Serigne Abdoul Karim Mbacké borom makarimal axlaaq moom itam nu ko ndokkeel ñaanal njabootu Cheikhul Khadim gépp nuyu bu baax a baax a baax soxna Baali Muntaxa soxna May Galas no soxna Mominatu Kebe ndokkeel nañu leen mbokk yi yaakaar naa biir réew mi bitim réew ñëpp bég nañu ci waxtaanu sëriñ Saliou Samb nu ñu ngi gën a sopp Cheikhul Khadim nag waaye ñaanal naa Serigne Babacar Mouhamadul Mansour xalif général des Tidiane nuyu ko ndokkeel ko ziar ko ak njabootu Seydil Hadji Malick yëpp Serigne Saliou am nañu mbégte yaakaar naa fi nu yem démb nit ñaa ngi naan ma waroo woon a dagg waxtaan wi ma naan leen lu neex du doy kon tey jii lañu ko àggale waaw ni ma la ko waxee woon dimb rek noonu la demee ni ñu ko waxee ñoo ngi sant mun Mountakha te koy ñaanal mu yàgg fi moom mbooleem rakkam yi mu bokkal borom Touba këri këri borom Touba yëpp këri doomi borom Touba yëpp këri seexi borom Touba yëpp ñoo ngi leen di leen ziyaara mhm. ndax nun liggéey bii nuy liggéey ñoom lañ koy defal suñ ñu woon ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko suñ ñu woon bu leen ko defati ñu bàyyi mhm. lépp lu ñu def ñoom ñooñu nga xam ne borom Touba leen meññi bu amul woon du ñu am ñoom lañ koy defal ñun bëgguñoo doon ci yoon wi lu dul ab talube te gëm nañ ñu duñ ko passé te nu mu rafete la nuy si la nuy seet na suñu talube rafete la nuy seet kon ñoo ngi ñaan ñoom yàlla bàyyil ñu leen fi ñu leen di xoole sëriñ bi te seen yéene yu rafet yépp yàlla yegale ci barke Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul barke bu weer wu màgg wii ak bis bu màgg bi nu jëm di sant bu baax ni ma la ko waxee waa télévision bi waaye biig ni nga ko waxee ñoo ngi woon ci sëñ bi bi mu nekkee ci daara ji sëñ Mbàkke Moral Sëli way juróom nekk fi yoon wi sosoogul mu am aw doxin wu muy dox ba ñenn ci dongo yi xemmem ko xemmem koo xam ne daanaka jox nañ ko seen bopp te wooteegul yoonu murit mais mais woote bi bi muy woote yoonu murit mhm. ci jamonoy sëñ Mamour Anta Sali la wala ginnaaw dem ak sëñ Mamour un an ginnaawam un ginnaawam la un an après dem ak sëñ Mbàkke Mor Anta waxoon ñaar bëgg laa wax kenn mooy ki njëkk a jébbalu ci yoonu murit su ma ko waxee ba pare damay ñëw ak yow ci woote yoon wi ak wàcc liggéeyu sëñ Mbàkke Mor Anta bu fekkee temps bi xaj bismillah dama la wax léegi maam sëñ Massamba Diop Sam ni mu ko defoon mhm. wax la maam Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye ni mu ko defoon te ñoom ñëpp ñu nekkandoo ci daara ji sëñ Adama Gueye maam Cheikh Adama Gueye bër mës naa am ci daara ji pour nga xam ne joxoon na boppam borom Touba moo njëkk a jébul nag biñ sosee yoon bi mhm. bër naa am ci daara ji sëñ Mbàkke Moral Sëli ci boppam yónni sëñ tubaa Ndar mhm. mu war a dem Ndar laajte sëñ Adama Gueye te sëñ Adama Gueye moo ko ëppoon ay at moom borom Touba moo ko bagoon ci saayir ñu ni ko ma mbaabu mu dem ba mbaabu ni ko sëñ Mbàkke Moor daf maa yónni ndar ma bëggoon nga bàyyi li ngay def ànd ak man ndar mu bàyyi li muy def topp sëñ Tuubaa ndar te booba daa bër war a dellu nopp la ji kon joxoon na boppam borom Tuubaa na ko te yoon wi amagul yoon wi amagul boobu waaw gannaaw loolu nag ama sasin mooy mille trois cent ci gàddaayu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mille trois cent ci la sëñ Mbàkke Moor Anta Sali wàcc liggéey ama sasin 1300 1300 ci gàddaayu Seydina Muhammad 1300 net sasin hmm. siin su tooy ak siin su wow mooy sasin mhm. bii 1000 la bii 300 la ci hijriya ci la sëñ Mbàkke Momar Anta Sali wàcc liggéey wàcc liggéey gàtt am na xew-xew bu ca xew ndax keroog la fil signal am lu mu leen wax moom si Amadou Bamba biñ ko dencee ba noppi kilifa yi dañoo dajaloo di waxtaan woolu Cheikh Ahmadou Bamba mu ñëw taxaw ca catal mbooloo ma ñu ne ko Ahmadou Bamba yegsil mu doon rasulullah ci ñàkk a jéggat mbooloo moom sëñ Tuubaa xamal leen ni du mën a jéggat mbooloo mi duy teggin ci man mm-hmm. waaye fii ma taxaw lu ngeen ma wax dinaa ko dégg ñu daal di waxante yee ñuy waxante ba jublu ci moom xamal ko ne Ahmadou Bamba danoo bëggoon nga ñëw ñu dem ci Lat Joor nga mm-hmm. teg moom sa way jur wii waaye ñu boole leen nga féete ko fa ko sa way jur féete woon di ci moom mu téye la sa wàllu àdduna sa risé si àdduna yëpp daal di dox sëñ tubaa ci làmmiñam wa mu daal di yëkkati kàddu daal di xam le ne bu fekkee dem ca moom ñi ngeen di wax jaalenteeg moom sama wayjur wu góor wii loolu day mën naa nekk ndax kóllëre amaa jëmmi nag di ko féete fenn mu may féete foo xam ni fenn ci lu war a doxal ci sama mbiri àdduna la te boobu masuliya daara gi daa wàcc ci kawam te jamono neexul. ñu xamal ko ni boo demee ci Lat yor dinga nga riche à partir d'aujourd'hui. te daara jàng waaw te daara ji. sëñ Mbàkke moor dem na moom la masuliya bi wàcc ci kawam mooy responsabilité daara ji ci moom la wàcc mu war leen a dundal war leen yor kon soxla na ci saayir dara ñu ni ko tey ñëwal waa ji yoral la sa saayir mu ni déedéet revenu buy bàyyi ko ci kenn di ñëw ci man sequma ko kudul buur bi ma bindoon. subhaanahu wa taala. ñu ni ko wéroo ñu ni daa góob waaye bàyyi leen ko. lu mat a xam yaa yu taw a xam yàggul nañ dox keroog la way xasida xaalu li yarkan li abwaabi salaatini oh. nee naan ma ma jeng jëm ci bunti buur su ma ko defee richesse yi ma soxla ci adduna yëpp naa ko am tahus jawaïsa tooni kulla maaxiin ñu ne ko si Amadou Bamba loo tontu mu ni fa xultu ma ni leen hasbiya rabbi sa borom doy na ma waktafaytu bihi bi ma yàlla doyee yamuma ci xam ni yàlla doy na ma dama koo doy loo damaa yam ci moom allahu akbar walastu radiya gayra al ilmi du ma gërëm loo ci àdduna mukk lu dul xam-xam ak diine walastu arju du ma yaakaar mukk wala aqsa te du ma ragal siwa maliki ñoom ñoo ngi koy wax beneen buur am na waaye moom benn buur la xam moom nee na mooy buuram siwa maliki subhanahu wa taala ñu ni daal ni li annahu naka sama buur bi nag jalla aji màgg la billahi yoon yi nii moo may dimbali di ma riisal wayun ji nii te bu ëllëgee moo may musal daal di wax ni anni ufawidu ahwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajzal masakini nan laay jëlee sama mbir di ko wekk ci buuri àdduna yi nga xam ni ñoo gën a lot seen mbir mi ci seen mbir yu àdduna yi miskin an xaalu anfusihim ajdal masakin du ma ko def mukk du ma ko def aw kay fa yubaasu nii ana naka la may yónnee dégg nga yonent bi lu mu waxoon boisto danu maa li utammima li utammima makaarimal axlaax ca baatu boisto booba waaw ca la génnee baat bi aw kayfa yubaasu nii ak naka la may yónnee xubbul xutaami bëgg poñatum adduna ilaa jiwaari man duuruhum raw du sayatini may fréquenté kër buur yi nga xam ni seen ëtt ya mooy jardin seytaane allahu akbar ñu ni ko nan dem lu taw xam yàggul li nga wax mënoo ko moog ñoom moog ñoom ak noonu moog ñoom ak noonu ba déwén mhm. ama assasine ci gàddaayu sayyiduna muhammad ñaar fukki fan ak juróom-ñaar di bisu ajjuma ci weeru koor laylatul xadri ba ca suba ga Cheikh Ahmadou Bamba génn ci Mbakke Kajoor ñawoon ca daara ja ña nga fa di wéyal li ñuy jàng ndax njàngaleen fa bàyyi woon mu wax ni saafahani rasulullahi bi xawli rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars faqat ah, est-ce que yonent bi ñëw na fi nee na ma naa yar sama saxaaba yi asxaabaka sama saxaaba yi ma àndal nee na ma mhm. yar leen bil himmati ci def yitte ci digganteeg seen borom te boobu demuk Mamour Anta Sali am un an boobu demuk Mamour Anta Sali am un an kooru ko assasine ci gàddaay Rasulullah ca koor ga ñaar fukki fan ak juróom-ñaar di bisu àjjuma mhm. ci la yoonu murit sosu laylatul xadri ba ñaar fukki fan ñaar juróom-ñaar bisu àjjuma laylatul xadri ba ci suba ga ah. ci la yoonu murit sosu Sëñ Tuubaa génn ca suba ga ajjuma laylatul biig la woon laylatul xadr di guddik ajjuma ñu xëy muy ajjuma Cheikh Ahmadou Bamba génn ni safaani rasulullahi bi xawli rabbi ashabaka bil himati wala turabihim bi dars faqat ku fi jàng kese kese kese kese indi woon mën ngaa laxas seeti foo ko mottalee koo xam ni nag bëgg nga def yitte ci sa borom ba mu xalimaam gi di daw ci alluway mahfus ngay dégg kiij kiij ji ñëwal ñu ànd man araada maa arat fal yasir bi sayri naa mais am na ñu dem am ñu am ñu toog am ñu dem am ñu toog sëñ Adama Gueye mii ma la wax moo njëkk a jébbalu Cheikh Ibrahima Sarr borom jasaka ci topp sëñ Massamba Diop Sama ci topp sëñ Dame Abdourahmane Lo moo ci topp sëñ Mouhamadou Lamine Gaye ci topp sëñ Darou Assane Ndiaye ci topp noonu la ñuy jébbaloo Sidi Birahim kañ la ñëw sama waa ji te déwén sa koor ga ca topp bu subaa ak jàmm Serigne Saliou kon waaw yàggale waxtaan wi bu subaa rek ñu yeggale ko yeggale séjour Mbacke Kajoor daa ngeen bi mbégteem 18 safar gi ñun ñépp koy yëg ngir sa màggal gëna neex yóbbaaleel sa puce 4 bu fri tàppeel gaaw dièse 155 dièse wala nga dem ci sa application My Free jënd sa paas yaatal sa mbégte waa réseau Free rekk la ñu màggal ci jàmm ak réseau bi wóor di Free ci sa réseau Free réseau bi wóor moo leen doon may seen émission te di leen ñaanal màggalu jàmm di Free ci sa réseau. دلالة حرج والخم ينام